Euh, Ajaratu maa ngi la ko doon wax sànq bi ñuy doo moom président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar fay moom nag demoon na ca sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest moom nag yëkkati na fa ay kàddu ngir rek daal di jébbal li nga xamante ni moo di ay xalaatam jëm ci boobule institution nee na nag lu ñu def rek lu dul fexe ba indi ay réforme jëm ci euh, CEDEAO itam moderniser ko ba mu gën a taxaw euh, euh, moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye wax na itam ci défi yi nga xamante ne ni war nañu fexe ba ñoŋal ko ba mu gën a ñoŋ jëm ci économique ak mbirum sécurité ak lii nga xamante ne ni moo di réformer tamit fexe ba organisation boobu ñu jëmmal ko ndax sori woon na li nga xamante ni moo di askanam parce que dañ doon seetlu à chaque fois su CEDEAO jëlee ay ndogal da gis askan wi eh, ña cay àndu du bëri lool moom daal kàddu yooyu la fa yëkkati eh, wax na itam fexe ba plateforme bi eh, dialogue yi ñuy def mhm. di fexe ba pratique yi nga xamante ne ni moom la CEDEAO di def mu méngoog ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay faral di toog Omar ci tënk daal jàpp nañ ni moom président de la République du Sénégal moom Bassirou Diomaye Diakhar fay indi na Euh, ay réformes yoo xamante ne ni moom la xalaat ne suñ ko defee peut-être CEDEAO dina fexe ba méngoog euh, jamono ji ni muy doxee voilà. tout d'abord di féliciter Diomaye man dama naan c'est un cadeau. Hmm. waaw moom venu de Dieu. parce que fi mu ñëwee ak fi CEDEAO toll. mel ne hmm. yàlla dafa yónnee Diomaye. Hmm. CEDEAO pour mu régle yenn problème yi. des nit ku ñëw rek am na loo mission boo war a dox. te dama gis ni jomaay euh, sens boobu la xaw ma nag moom xam na ko xaw ma nag waa CEDEAO xamuñu ko mais man bi mu ko bu ma koy gis muy tukki yi surtout di dem ci état yi nekk CEDEAO nii ñëw dem fu ne dem Nigéria dem fépp da ngay euh, sentir ni. Mm-hmm. am na lu ko suñu borom yabale. Mm-hmm. beneen bi ci topp euh, le président Nigéria Bola Tinubu bi mu ñëwee moom. ñëwul dafa ñëw moom kañ boppam quoi. Mm. ne le grand Nigéria est de retour. Mm. moom boppam Nigéria quoi xam Nigéria mooy géant bi mais kii moom bi mu ñëwee dafa jàpp ni moom puso bu war a ñaw. léegi nag confiance bi doxoon ci diggante ñun ak CEDEAO dem na fi sax ba yenn atte yi daan am ci mbiri Sonko ak yooyu bu CEDEAO atte ñu koy ŋaañ yu bari pour man looloo gën a tuut ci li CEDEAO war a jariñ parce que CEDEAO bi ñu wax la liberté de de circuler. dafa war a kii des biens et des personnes. Mhm. maanaam ki dëkk Côte d'Ivoire wala ki dëkk ci réew CEDEAO yow moom benn ngeen. demoon nañ fii ba nekk quarante CEDEAO mais quarante yooyu est-ce que ñëpp respecté nañ ko. Sénégal wàcc woon na ak moom mais tey jii bari na ñuy jógee fii di dem ci réew CEDEAO bi ci ay difficultés la ñuy jaar alors que tey jii ki dëkk ki bokk CEDEAO yow nga bokk CEDEAO benn ngeen waroon a doon war yow amoon waroo am problème pour dem Côte d'Ivoire wala feneen ak feneen kon yooyu yëpp pour gën a rataxal diggante yi entre ñun. organisation communautaire bi ñu gën a ànd doon benn parce que mbooloo moom mooy daal parce que àdduna bi foofu la toll mooy ànd te bañ tasaaroo. Mm. léegi nag jomaay fi mu waxee mooy ci CEDEAO xam ne dañ koy wóolu parce que dafa dem bu wóolootuñ koo woon. Mm. léegi nag kóolute googu waa CEDEAO ñoom ñoo ko rejoué mm. mooy ñu bañ a doon rek ay gouverneur France parce que des fois on a l'impression que fi France di xool fa la réew CEDEAO yu bari di xool. am na benn jamono ñu wax fi benn monnaie bi ñu war a bokk muy éco. éco waaw mais tey jii éco boobu waxatuñ ci waxatuñ ci lan moo ko indi jamono mooy ñaari réew Sénégal ak Côte d'Ivoire seen ñaari njiitu réew gars yi togg ba mu ñor ñu dem wax ak France dëpp yalwaan bi di Macky Sall ak Gbagbo mu mel ni ay français lañu envoyé woon pour ñu ñëw di tasaare CEDEAO. Mm. loolu Macky Sall da ci joué rôle bu am solo pourquoi wóolatuñ CEDEAO moog Gbagbo. dañ ci jouer bu am solo. Euh, Alassane Dramane Ouattara bokk waa ado waa dañ ci jouer bu am solo tey di nag ñëw jumaay boobu tey ñëw foo xam ne tey waa AIS alliance des états du Sahel ñoom beru nañu di de fa yéene def seen mbiri bopp jomaay nekk ci diggante bi mi ngi CEDEAO mais aussi moom mooy kenn koo xam ne sañ na dem Mali kenn du ko laaj loo fi def sañ na dem Niger sañ na dem Burkina mm-hmm. sañ na dem feneen ak feneen taxaw pour rataxal diggante yi. loolu tax ma ni la maanaam jomaay. sens la pour CEDEAO utiliser ko pour que ñu mën a gën a àndaat doon benn. parce que li xajamal mbir mi mooy ñetti état yee beru loolu war na tiital ñu bari. parce que sur le plan économique. loolu dañuy souffrir ñetti état yee li nar a taxaw bu ñu ci taxawee dina métti ci ñoom mais dina métti ci ñun ñi parce que dañoo séq teraanga. te teraanga bu ñu ko séqee bu ku ne téye bosom rek dina métti ci kum dem nañ bay laal ay visa. maanaam dem ba bëgg a ay visa suñu diggante te ci ñoo xam ne dañu woon dem ak dikk warul doon gàllankoor ci ñoom. Mm. ñu dem ba ñett mer beru te ñett ñooñ ñëpp mer beru France moo leen merloo mais benn wàll CEDEAO bi ànd ak France ci ber gi ber Niger Mali ak. Burkina loolu tax nag foofu laa foofu loolu tax sànq bi may door ma ne sens la pour Diomaye mm. loolu tax CEDEAO war nañ ko gën a jox doole dégg naa bëggoon nañ ko. jox présidence bi mais comme day doog a falu. mu gànt ko. mais pour man jomaay jëmm la joo xam ne tey jii. chance la pour Afrique chance la pour CEDEAO pour ñu gën a recoller les morso ànd doon benn parce li ñu seq nii jamono yi baaxul. Mali seen ter danoo seqoon teraanga. tey Mali bu mënatul ñëw suñu port mënatul dem Côte d'Ivoire tëju ci boppam dina metti ci Mali mais dina metti ci ñun. yéen ngi fàtte bi nu doxee ci diggante ak Mali mais Macky Sall bi ne tëj nañ frontière bi dem na ba ñun suñuy camionneur dañ ko yëg. mais Mali aussi doo mu ñu du ko yëg di nga nag ñu mënta tàqali ko dañuy ànd comme adduna bi yëpp ñu ngi ànd ñun nan ànd doon benn mais di mhm. féliciter notre président cat bañ ko dugg taxawaay bi mu am ci Afrique Sonko mi ngi géré fii moom mi ngi géré fee waaw mm-hmm. jërëjëf euh, Omar Ndeya euh, Basiru itam nee na euh, nañu fexe ba lii di renforcement wu démocratie ak bon gouvernance ñu def loo xamante ne ni dana nekk priorité ci jamono ji. voilà ma jigéen ma ki nga xam mooy le président Bassirou Diomaye fay dafa yëkkati ab discours digne de son nom parce que vu ak CEDEAO doxalin bi nga xam ne amee woon na ko mu taxaw ne pour ñu soppi CEDEAO il va ñu jéem a coller les morceaux waaye tam ñu jéem la nga xam xam ne moom la askan wi fooge woon ci ñoom mooy que France moom moo leen di influencer loolu itam ñu jëm ko wàññi wala ñu jëm koo euh, jéem a xool na lañ koy nooyalee ba askan wi amaat kóolute euh, ci li nga xam mooy CEDEAO mu nekk tamit une bonne chose boo xam ni man bu ko waxee dama ci am benn contentement et que bëri na Sénégalais yoo xam ni euh, noonu itam bi la ñu gisee ne CEDEAO doxalin bii la war a am parce que loolu mooy tax ku nekk mën a gis sa bopp ci CEDEAO parce que demoon na benn moment boo xam ne jàppoon nañu sax organisation la boo xam ne amatul sens maanaam warul sax dund pour la warul sax dund ba Sénégal di ci am benn président boo xam ne daf ciy daal di bokk et que lii lu lu lu lu rafet la mais aussi tamit leen li nga xam ne euh, demandé nañ ko ko dem nañ sa ba ba di ko saraxu ngir mu def ko. Mm-hmm. mooy que mu indi euh, ñetti dëkk yi nga xam ne amaan dañoo génn euh, ci CEDEAO muy Niger Burkina Faso mm-hmm. voilà ak li nga xam mooy Mali. Mm-hmm. mais en quelque sorte man dama ñooñu seen génn ñoo jàpp que ne France moom moo nekk ci ginnaaw CEDEAO léegi ci loolu mais tamit dafa am lenn loo xam ne ñoom dañ koo jàpp mooy que dafa am benn menace menace terroriste boo xam ne dafa doon dal seen kaw attaque yoo xam dañoo ñëw seen kaw mais jàpp nañ ne CEDEAO taxawaay bi nga xam ne moom la fa waroon a am malheureusement amu ko léegi nag ñoom gisuñu seen bopp ci CEDEAO moom moo waral ñu daal di génn et boo seetloo yi tamit Mali ni mu jotee li nga xam maanaam ki nga xam moo fa nekk euh, na nga ko euh, joti euh, dalee leer que ne jotewu ko ci la voie démocratique ki nga xam ne tam moom mooy Niger même chose et Burkina Faso tamit ñu nekk ay dëkk yoo xam ni mën naa ni dañoo coup d'état la bañ jël li nga xam mooy réew mi CEDEAO yi tamit taxaw temm ne leen coup d'état nañ ko bàyyi nañ ko arrêté léegi nag ñoom ñu gis seen bopp jàpp ne CEDEAO da leen di xeex et que la France moo nekk ci ginnaaw ñoom tam ñu décidé retiré wu mm. mbir la moo tax ñu génn ci la CEDEAO mais daal li ñu ci mën a wax mooy que euh, nañu xoolaat defaraat bu baax a baax li nga xam ne moom mooy mbir mi la sànq mm-hmm. Omar am na lu mu souligné mooy mm-hmm. le fait que le président Bassirou Diomaye Faye la nga xam ne joxoon nañ ko ko pour mu maanaam kan pour mu nekk candidat euh, pour mu jéem a nekk ci bopp CEDEAO mais dafa lànk mm-hmm. et loolu tamit nekk na ab piège boo xam ne man na yaa piège laa ko jàpp moom Bassirou Diomaye Faye trait d'union la entre euh, ñi nga xam ne ne Niger Mali ak Burkina Faso ak ñi nga xam mooy la CEDEAO et que bu nangoo ci côté bu nekk rek nit mën na fee gis sa bopp ndax la preuve am na ci ñoo xam ni euh, ñi nekk Mali Niger ak yooyu commencé woon nañ gis seen bopp ci maanaam commencé woon nañ mere en quelque sorte ki nga xam ne mooy le président liñ ci mën a jàpp daal mooy que euh, c'est une bonne chose que le président yëkkati yooyu les kaddu devant la CEDEAO waaw jërëjëf Ndeya Adjaratou dégg nga Diakhar Faye ngeen baal ma président bi bokk nee na fi mu toll nii urgence yi nekkul rek lu dul jéem a fexe euh, daal di renforcer euh, kuréel gu mag googulee di CEDEAO. waaw man li ma ciy wax du gudd ndaxte mm-hmm. nag euh, xam nga mbir boo ci nekkee bu ñenn ñi gisee ni France moo nekk sa gannaaw mm-hmm. ñenn ñi ni France moo lay wax moo lay dicté décision yi nga xamante ni moom lañuy def te ñetti état yi génn muy Niger Burkina. Mali mm-hmm. dajji nga di. yow kay lay xool daaj bi nga def. kobraawal <laughs> waaw kobraawal <laughs> ak Mali nga xamante ni ay régime militaire lañu ñooñu c'est pas pour rien. réew wala ñu def ay coup d'état ak yooyu. Mhm. mais daal lu mu ci mënti doon. Uh, man bu ma doon ñoom du ñu génn dañuy toog di kaas li nga xamante ni moo leen naqari pour mën a am ay réformes yoo xamante ni dinañ ko mën a indi comme ni ko président Bassirou Diomaye proposé li mu ci wax ci xalaatam parce que euh, mbir boo ci wokkee doolu mënoo rek uh, ay mesures wala ay décision yu CEDEAO jël nga suivre leen aveuglément non non non man je ne pas d'accord bu fekkee nag mënuñu toog ci bi di ko xeex peut-être ñii ñu def ñoo gën parce que tout le temps dañuy wax ni ñun amuñu autonomie amuñu indépendance donc ñooñu bien que ne nag am na ay ay ay conséquences yoo xamante ni mën na ci topp wala ñun ñi dina dem ba ñun suñu diggante day metti trop ni moo nekk ci suñu diggante mais lu mu ci mënti doon daal nañu bàyyi xel li président yi proposé ndaxte mbir mi nag foog mu am ay réforme pour mën a gën a dëgëral état Afrique de l'Ouest waaw alaaji dégg nga kàddu yi nga ne président bi yëkkati na ko li waral li ni mel nag peut-être sénégalais yu bëri jàpp ko mooy que ni euh, CEDEAO dafi taxawoon di jël ay décisions yoo xamante ne ni euh, yu ci ëpp askan wi doon ñu ci woon d'accord moo tax tey jii nii mu taxaw temm ne nañu fexe ba moderniser waa ak kuréel gi di CEDEAO waaw doxinam moom baaxut parce que doxinu ay màggat yu caaxaan lañ def <laughs> nekk ñu jiital leen ñuy caaxaan mm-hmm. ba li xew ci Afrique yëpp ñooma parce que échec la parce que ñetti dëkk yi génn mm-hmm. échec la ci CEDEAO mm-hmm. ñoom ñoo matut li ñu doon bu ñu matoon li ñu doon militaires yi duñu jiite réew yooyu seen ñàkk a mat li ñu doon moo tax militaires yi jiite réew yooyu bu fekkoonte ni matoon nañ ba gars yi di jël constitution yi di ko mbalañ mbalañee ca la CEDEAO di wax arrête na dakk mais defuñu ko bàyyi ba soldaar yi jël yëf yi yeewi askan wa ñu soog a ñëw di jël ay ndogal ak sanction looloo tax askan yi dañ naan ñii dañ ñuy fontoo parce que biñ leen soxlaa waxuñu bàyyi ba kenn soxlaat ba ñii regle suñu problème ñu ñëw léegi askan wi dañuy gisee militaires yi ay héros te loolu lu dangereux la. Mhm. parce que askan wi non seulement falu ñu soldats yi soldats yi ñoo jekki-jekki mel ni dañ leen a libéré. Sénégal gi tolloon nañ benn période boo xam ni. Mhm. booy yi def nañ lu ne pour jéem a ñaax sunu armée bi pour ñu fuqar ci nguur gi. Mhm. loolu ñëpp gis nañ ko heureusement que sunu borom dimbali na ñu yor armée républicain boo xam ni doxuñu ci loolu mais booy façon influence bu ne def nañ ko. dogal yi CEDEAO di jël nag day gën a dëgëral ñële ca la ne parce que bu jëlee ay dogal yoo xam ni ci askan walay dal. ñooñu dañuy jël loolu victimiser wu daal ne gis nga liñ ñuy def dañ ñuy gën a sorile moo tax CEDEAO euh, li nga xamante ne bi moom la président Diomaye wax ak yoon wi nga xamante ni bi ci la woo CEDEAO parce que actuellement sunu borom nag ci moom la jaarale yëf yi pour mbir yi mën a régler man nag jàpp naa ni dogal yi CEDEAO jël mbir la pour yëngalaat affaire xam nga pareen saa yi nga gis ñaari nit ñu am problème. mais am nañ problème. mën nañoo dem ba ku ci nekk téye boppam. fi doon ci foofu lañ toll maanaam ñee nañ seen bopp ñii téye nañ seen bopp c'est-à-dire te léegi nag pour lijjanti problème bi léeg-léeg il faut am problème ñëwaat. léeg-léeg problème bu ñëwaatee. mën nañoo jaaraat ci problème boobu pour régler problème yi. comprendre mm-hmm. donc man jàpp naa ni lii jógaat ab problème la boo xam ne peut-être bu ñu il suffit que ñu koy régler mën nañu régler waale problème yu bari parce que militaires yi tamit nañu xam ni seen yii ñuy def nii yàgg-yàgg bu yàggee tuuti askan wa tamit dinañ jógaat waaw mm-hmm. que mënul wéy quoi déedéet parce que askan xam kañ lay demaat élection ak kan muy ñëw loolu askan moo mel noonu. Mhm. mën na la tàccu benn période mais après lool il faut mu amaat. incha allah mooy yoon sax. mi ngi noonu lii la ñu indi woon tey comme actualité du jour jox leen dig daje suba ak jàmm ak beneen actualité. merci beaucoup ma jigéen Diop Dieng Sall.